ahousu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu eh, di leen dala jàmm di sant yàlla suñu boroom di julli yonent bi sallallahu alayhi di am mbégte loolu itam ci jataay bi tey li ñu fi dajale mooy benn naal naal boo xam ne dafa jëm ci mbirum jàng ak jàngale ak yar mooy benn institut islamique boo xam ne dañ ko naan fële ci côté Lompul institut bi nag nekk lu am doy wa nekk liggéey bu mag boo xam ne euh, du liggéey bu ndaw li ko tax a nag mooy islam mooy euh, jàngal nit ñi yar leen teg leen ci yoon yàlla def nag ñu am suuf si mu ñu am ko mu toll si benn hectare li ko war liggéey itam ci xaalis toll si ñeenti téeméer mil ñetti téeméer ak ñeent fukk. million ak ñeent moo ko war liggéey ndax baral boo xam ne ñu bëgg mu am lépp euh, am ay barabu ay daluwaay logement am yi mbit barabu jàngukaay yu mucc ayib am tamit jàkk ci biir am ne day complété lépp ni ci biir loolu nag nekk nag naal bu rëy boo xam ne ñu bëgg ñëpp euh, bàyyi ci xel te dugal seen loxo ndax daal yu ba àggee incha allah njàng mi na mu fas yéene demee mooy alxuraan yi fa jàngale alxuraanul karim bu noppee tamit la ci teg mooy xam-xamu diine yi lañ fa jàngale bu noppee itam la ci teg mooy jàngale xam-xamu mbay jàngale tamit xam-xamu technologie lu jëm ci mbirum xarala yu yees yi ndax dañoo seetlu ñu bëri euh, danañ jàng alxuraan bu nu bàyyi bu ñu noppee daanaka duñu am ñu def wala wala boog danañ xaw a tumbaanke yenn yenn saa yi du ñu bëgg nag nit kii bu fa génnee mat sëkk am métier boo xam dana ko mën a yor euh, mën cee tedd ba du soxlaa kenn dara moo tax ñu bëgg alxuraan boo ko jàngee bu noppi jàng xam-xam sa diine ba xam ko boole ko yar bi ak teggin yi boo ko defee tamit nga am nga xam nga am loo xam ne da nga ci mën a sukkandiku mën a yoroo sa bopp mën a demoon sa bopp mooy xam-xamu mbay bu dee mbay mu dafa yaatu lépp lu ñuy lekk rek dañ koy bay ba ci yëri ñu sol sax daanaka sax am na yoo xam ne lay doon coton wala leneen wala wërteen lay doon ñu xam ne mbay dafa nekk loo xam ne amul kenn ku ne si àdduna te doo ko te doo ko kon loolu xam la boo xam ne buñ bu am solo la ñu war a jàngal ñëpp la moo tax euh, dañ ko jàngale foofu tamit ak xam-xam bi nga dafa jëm ci wàllu xaar looy yees yi loolu nag ay naal la ngir mën am nag il faut que nit ñi euh, xam ne mbir mi seen mbir la maanaam euh, naal bi naaloom ñëpp la ñu bëgg nag ñëpp ñu ànd ci ñun ci loolu jàppale ñu ci ñëw bokk ci projet bi ba loolu sotti ndax incha allah bu àggee njàng ma kenn du fay dara loolu lañ bëgg njàng ba incha li ñu naan bu àggee njàng ma kenn du fay dara boo doon xool itam li gën a ëpp solo lépp daanaka jàll na mooy lan suuf am nañ ko mooy gën a jafe am nañ suuf la sécurité moom mooy euh, am nañ ndox ndox moom. wax naa ko ma ci waxal ba noppi pour mu yóbbu ko fa ba noppi loolu du problème loolu moom réglé woon noppi incha allah ndox moom féet na boor ba noppi suuf tamit du fa jafe-jafe maanaam suñu tabaxee du fa jafe-jafe jafe kay mooy ñett yi la bu ci jàppale lañ si lañ si gën a bëgg mooy euh, suuf moom moom mooy moom mooy xeer ciment ak fer euh, ciment ak béton ñett yi daal lañ fi gën a soxla képp koo xamante ti am nga tamit euh, loo xam ne xay na a naa yónnee daara ji wala mënu ko gën a jëmmal loolu tamit ñu ngi koy sàkku waaye daal lii dafa nekk loo xam ne lu rëy la nekkul lu ndaw ndax du du projet bu tuuti te julli yëpp dafa seen nekkal incha allah nekkul dañ ciy fayu kenn waaye dañuy bëgg a liggéeyal yàlla liggéeyal foofu Serigne Touba li ci ëpp solo nag moom mooy institut bi li muy ñi muy formé ci ay nit ñi mu bëgg tabax bu ñu noppee ni ñu war a mel loolu ci ëpp solo nag nit nañ yoo xam ne duñ doon ni ko ay nit ñu jàmbare ñun tabax nit ñi nit ñoo xam ne dañ tëj fenn rek ñu fa nekk di lekk ay mburu chocolat ay mburu wala yooyu ñu tax ñu nit ñoo xam ne nit ñu jàmbaar nit ñoo xam ne am xel am xam yow ba ne jar intelligent la def nit ñoo xam ne dañuy xam lépp ba noppi ànd ak yar ak i teggin bëgg ñu nit ñoo xam ne dañuy jàng ba rek euh, maanaam duñ génn waaye yambare duñ xam lu bari yi nekk ay yaafus bëgguñu loolu dañu bëgg nit jàmbaare nit ñoo xam ne dañuy mënal seen bopp moo tax ñu bëgg boole njàngale mi boole kook yar bi ak tamit njàngale métier mi loolu moom lu ñu lu ñu soxal la loolu daal mooy tax jug daara ji léegi nag li nga xam ne moo ko war liggéey détail incha allah danañ woo Mbaye Fall euh, professeur moom mu ñëw leeral détail yëpp ngeen xam ko incha allah loolu daal moo woon jotaay bi euh, li ñu ci gën a bëgg mooy rek ñu xam ne loolu mbirum jullit ñëpp la ñëpp ci am wàll te bu naa bi dafa rëy tamit ci milieu yu ñu tudd fii dafa bari man man moom euh, yëngu ma ko lool ndax ñi na ci terrain yi di football ñooy def fay chaque semaine ay millions yu dul jeex te ñu ay ma leen mag rek lañ. te ñooñu lañu dañ ko wëlbëri si maanaam dañoo fexe ne fexe nañ maanaam ba ab bal donc bu ñu bu ñuy ak ñax ñu ci fay xaalis bu dul jeex mooy football la ñuy def stade yi ñu def ko ay milliards lañ ko liggéey ay milliards lañu liggéey stade yi lan moo tax ñu ne suñu daara ñu mën ñu ko jox daara yi gën yi ëpp valeur lu tax mënta nekk bi ñu liggéey projet bi maa wax euh, mbay ma ne ko nañ jël la gën a baax bu ñu dee installation courant dañ jël installation courant bu gën a baax bu dee wàllu folombele sanitaire dañ jël la gën a baax bu lépp la gën a am qualité lañuy jël li des nag mooy dox jëm ci rek fas ne tàmbali àggalik moom ci wax yàlla nekk ak bu si julli àndee te te jàpp ci incha allah loolu daal euh, moo tax ma xam ne nit mën naa am yéen ju rafet dox jëm ca la des nag moom ci loxo yàlla nekk dañ ci nekk rek ba keroog la bi sot allah kon bu ko defee dañu woo mbay mu ñëw leeral projet bi ni mu doxee lépp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. donc li ñu boole fii tey mooy waxtaanee euh, travaux yi nga xamante ni euh, dafa jëm liggéey yi nga xamante ni dafa jëm ci këru. Euh, jàngale bi nga xamante ni sëñ Xaadim Mbàkke dafa nam sos ko fële ca dëkk bu ñuy wax Lompul Géej donc nekk ci région de Louga département de Kébémer euh, te mu am fa donc suuf soo xam xamante ni war nañ fa mën a euh, taxawal donc institut islamique donc Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu am Bamba xaadimu rasul donc liggéey yi nga xamante def nañ ko pour le moment ci nga xamante ni moo ñuy permettre ñu xam exactement lan la bâtiment bi war a jar donc liggéey yooyu def nañ ko ba noppi donc juróom juróom-ñetti xaaj la donc xaaj bu njëkk bi mooy wàllu préparation terrain bi wàllu euh, defar euh, euh, terrassement bi wàllu aussi indi ndox mi wallu aussi defar aussi nivellement système de nivellement bi nga xamante ne moo ñu permettre kër gi mën a am niveau bi ñu bëgg pour pour bañ a am ay dëng-dëng ci yéen yéen ko xamee donc loolu lépp bi ñu ko xayma juróom-ñaari millions la lu teg téeméeri junni donc 7 millions 500 Euh, ginnaaw loolu aussi war nañ commencé jublu ci taxawaay yi taxawal bâtiment yi donc mooy gros œuvre yi nga xamante ne amul finition donc bâtiment bu taxaw bi donc loolu aussi nañ tabax miir bi nga xamante ne moo wër terrain bi terrain bi wax naa leen sànq ni benn hectare la donc dafa dafa a rëy boo ko estimé ci mètre carré donc c'est autour de 10 000 mètres carrés donc lu rëy la lu bari la ensuite aussi dañ taxawal fondation yi pour bâtiment bi m a jug bu ñu paree ci loolu doo yëkkati yëkkati yëkkati bâtiment yi donc bâtiment yi aussi du tabaxuñ hectare bi yëpp parce que loolu dafay dafay diis trop trop li ñu tabaxum pour le moment ci la ñu bëgg a tabax ci ci ci enceinte yi c'est autour de 2000 euh, hectares donc 2000 hectares maanaam boo xaajee bâtiment bi juróomi yoon benn benn xaaj bi lañu lañu lañu la ñuy tabax donc loolu rek euh, téeméeri million la ak juróom-benn fukk ak ñeent yi nga xamante ni moom moo ko war a moom moo ko war a tabax. Euh, ginnaaw loolu aussi war nañ tabax étanchéité fa ngeen xam ngeen ne en fait foo xamante ne ndox dafay jóge donc te zone boobu dañ fay dañ fay bàyyi lu bari donc ndox mi day ball souvent nappe bi soriwul. donc war nga defar loo xamante ni nii ak lu mu mën a taw ak tam lu mu mën a taa bâtiment bi dina mën résister te tamit xam nañ problème la ci suñu dëkk yi donc am ak ak akuñ ci niveau yu mel noonu loolu tamit ñu ngi ko estimé ci 27 millions puisque xam ngeen ni étanchéité dañu koy jaay par par mètre wala dañu koy jaay ci ay rouleau donc boo calculé en fait surface bi nga soxla yëpp dina la jox 27 millions tamit tiituñu tamit ci tiituñu tamit dama koy wax dëgg tiituñu en fait ci ni moom la ñu avancé parce que tamit vraiment dañu bëgg liggéey ci la gën ci la nga xamante ni domaine boobu loolu loolu fa am euh, donc après ñu commencé dugg ci réseau yi donc électricité wàllu courant donc courant bi ñu bëgg a taawal foofu maam courant solaire la xam nañu dëkk war dafa tàng bokk na ci région am te ñoo gën a tàng Sénégal te courant solaire bi c'est gratuit donc suñu borom moo ko joxe ñëpp mën nañ ci ñëpp mën nañu ko jariñoo donc il suffit seulement nga am say panneaux photo say say panneaux solaires wala ay modules yi nga xamante ne ñoo lay permettre nga capter énergie bi donc transformer ko mu nekk courant nga mën tabaxal say lampe tabaxal ci lépp lu nga xamante ne moom nga bëgg dawal ci courant donc loolu tamit euh, ci lañ bëgg a def puisque euh, ci Senelec wóorul pour bâtiment yu toll noonu wóorul parce que Senelec couverture dëkk bi doyut parce que da ngay tam ba ci yàgg nekk ci ay jotaay xamante ni da ngay solo courant wala ñu ne facture moo tax ñun ñu ñu permet ñu ñu defar loo xamante ni maanaam dootuñu bokk ak Senelec dara te dinañ am courant bu doy ba mën a cee maye suñu bëggee donc loolu tamit donc mooy module photovoltaïque ak tamit système bi koy installé donc loolu euh, ñaar fukki millions la ak juróom-ñaar lañ lañ ci prévoir. ensuite ñu dugg ci plomberie ak sanitaire donc wàllu matériel de branchement bi ak euh, système bi nga xam te moom la teg en place pour mën a traiter ndox mi parce xam nga ndox mi ñuy jëlee foofu ndoxu la. donc boo ko jëlee doo ko jëlee naan ko donc il faut nga traité ko bu jaar ci ay réseau nga am tam ay adjuvant yoo ci dolli yoo xamante ni dina permettre ndox mi mën a set ba ko xamante na ko jëfandikoo sans bañ a a am problème xam bu ñu koy wax ay xale war nañu ko sàmm nga xamante ni nañu ko ay waajurab joxe woon noonu tam lañu koy delloo ci wàllu santé donc ba nga xamante a jot loolu tamit ñaar fukki millions moom lañ ci estimé yi donc maanaam carrelage bi donc lépp li nga xamante ne moom lañ a jëm tam loolu tamit ñaar fukki ak juróom-ñaar la Euh, jàll aussi ci ci ci menuiserie bi donc buntu ak cadre ak euh, mobilier yi nga xamante ne moom la ñu war a utiliser lu mel ni ay bureau yi nga xamante ne ñoo war nekk ci institut bi loolu tamit c'est autour de donc juróom fukki millions ak benn la euh, lañ ci def loolu tamit puisque zone bi ñu nekk tamit zone agricole la xam ngeen ni souvent booy tabax bant da jël bant bi gën tamit bant bi nga xamante ne dañu koy traité ba nga xamante ne lu mel ni ay wàllu max lu mel ni nga xamante ne day yàq yooyu du ko mën a dara moo tax ñu jël bant bi nga moo gën ci bant yi pour pour ko ci loolu ba mujj tam ci peinture bi xam nañu mooy mujj ci ci ci kër gi donc loolu tamit ñu ngi koy ak jënd peinture beeg main d'œuvre bi donc autour donc de 2 millions la ñaari millions yu teg euh, ma waxaat tuuti tamit ci li nga xamante ne moom laa commencé woon mooy wàllu euh, daara ji daara ji ni ñu ko bëggee euh, mu nekk daara boo xamante ni dëgg la daara yi bëri na Sénégal Sénégal dëkku tradition bi maanaam histoire boo jàng histoire yi nga xam ne dëkk daara la daara yu gën a mag depuis année 1700 daara Pire daara Koki daara Touba ak li fi daara mais dañoo seetlu ni ndongo daara yu bëri dañu gën ci daara yi te la nga xamante ne moom lañ aajowoo ak seen société maanaam wàllu métier ak wàllu xam-xam pour doxal société bi dañ koy xaw ñàkk tuuti léegi moo suñu xaar ni moom daara ji euh, ginnaaw bu ñu jàngalee xale bi ñu ko jàngalee wàllu xam-xam wàllu alxuraan ba mokk lépp ba nga xamante ne fekk na ko lépp côté yëpp dañ koy tamit jàngal ay xam-xam yoo xamante ni dina ko jariñ dina aussi jariñ askanam kon tam ngeen xamee ngeen xamee ci ni projet bi nekkul seulement un projet mouride nekkul seulement projet maanaam day yem ci nit mais dafay jariñ Sénégal donc appel la boo xamante ne tamit ministère bi nga xamante ne moo moo géré wàllu éducation donc war na cee dugal loxoom ministère aussi bi nga xamante ne moo yor tam wàllu enseignement professionnel war na cee dugal loxoom parce que suñu xale day day combiner ñaar yëpp quoi dafa boole ñaar yëpp donc jàngale mais tamit solo xale bi xam-xam boo xamante ni bu génnee dina affronter àdduna bi dina ko affronter affronter boo xamante ni maam du ci sonn te dina am njariñ pour askanam maa ngi gàttal pour yemal pour bañ a guddal jéggalu wér nag ci yenn rëcc rëcc yi asalaamaaleykum wa ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi fii teew yëpp di sant bu baax di gërëm sëriñ xaadim mi nga xam ne moo woote ndaje mi di sant ñi fi jaar ñëpp ci ay boroomi kàddu yu rafet tàmbale ci sëñ góor jaay ndaanaan mi teg ci sëñ xaadim mi nga xam ne moo doon présenté projet bi nga xam moom la yëkkati waaye professeur bi nga xam moo ko doon gën a détaillé di ko leeral ñun ñëpp sëñ Mbay Fall ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm euh, leeral bi leer na ñun nag suñu kàddu dañ koy tënk ci lu mel ni boo ko yëkkatee lu mu gàtt gàtt gàtt ay xalaat mën naa jóg xalaat yuy jóg nag lañ ca xam ci côté diine ñu wax leen ko ci liggéey yu mel nii euh, bu ñu ndokkeelee sëñ xaadim ci initiative bi nga xam moom la yëkkati ci bu taxaw bu taxawal lii ndax ay atam bariwut waaye yëg-yëg bi yëg-yëgu mag la yëg-yëgu mag la ndax fi société bi toxal toll dafa soxla naal yu mel nii naal yu mel ni bu eggee lu baree bari ci ay jafe-jafe mën na koo régler nii ci côté njàng nii ci côté liggéey kon sëñ Xaadim ñi ngi koy ndokkeel bu baax ci yëg-yëg boobu di ñaan suñu borom sottal ko ci kaw jàmm salaam ñi ñu fekk ko tatal ko yow mi nga xam ne yaay seetaan jotaay bii ñuy amal di kilifa diine di ku yàlla ma ne loxo di koo xam ne yàlla dogal na li nga yor mën ngi ci dund ba bàyyi ko fi ngay seetaan jotaay bii wala appel bi egsi ci yow ak noo ko mën a jote nga bàyyi xel man mi wax maa ngi ci biir damay jot li kàddu gi nga bàyyi xel lii may waaj wax gis nga li ko ëpp solo ci ku yor dara ci jamono ji ñu toll mooy mu fexe ba bu fi bàyyi koo kenn du foye alalam fa muy tëdd ca bàmmeel yii ba da ko fay fekk muy tëdd ba saa di taxaw te loolu li koy maye mooy def sa alal ci liggéey boo xam ne fii ak liggéey baa ngay baa ngay dox diirub jamono sab yool du dagg jotaay bii ñuy wax nii ak li ñuy yëkkati képp ku ci aw ñaqam dugg ba jotaay bi sotti ay téeméeri at ay ñett téeméeri at ay junni at génération bu ñëw fekk gone yaa ngay jàng ca daara ja yow boo faatu sa biir bàmmeel moom bis set dana am loo fay fekk moom muy ab kon jotaay yu mel nii su amul gémmiñ te yor dara def ci war naa mën a yomb damay faral di wax ne ku yor lu ne gàññi te def lu ñuy teg bët jafe la war ngaa xoolaat sa bopp man lu ñuy ke lu ñuy teg bët ci wàllu diine jafe la war ngaa xoolaat sa bopp ndax am na alal yoo xam ne nii bu dee dafa set def ko ci yoonu yàlla dana yomb waaye ku yor alal ju baree bari te def ku def ci yoonu yàlla jafe la war ngaa xoolaat sa bopp war ngaa yeddaat sa bopp kon jotaay yi maa ngi woo mboolem ñi nga xam ne yàlla jox na leen dara seen alal joojee buñ ko seetaan bàyyi ko fi wan ko ginnaaw nit ñi ñi bàyyi ginnaaw di ay bokk ki doom doon na ko di ko pasar pasar fu leen neex ñu dugal ko fa waaye ba donte da nga bàyyee ñi lay doon dara fexeel ba jiital sa biir ba mel loo xam ne yool ba du dagg te loolu bokk na ca mooy nga def sa alal ci finance ci finance sa alal ci liggéey yu mel nii kooku mooy benn ñaareel ba mooy am na loo xam ne képp ku ko def ngërëmal yàlla da cee nekk ngërëmul yonent bi da cee nekk sa alayhi wa sallam ngërëmul Serigne Touba da cee nekk fédération yi bari na daayira yi bari na mbootaay yi bari na kuréel yi bari na te ñoom ñëpp boo leen laajoon la tax ñu samp ko mooy dañoo jàpp ngërëmul sëñ Tuubaa la ñuy sàkku ca loola am na loo xam ne nag ngërëmul sëriñ bi moom daf caa nekk muy jàngale alquran def ko ci xolu def ko ci def ko ci gone yi loolu moom kenn na nattablu ci ne moom la sëñ bi gënoon a bëgg lim gënoon a bëgg ci ndaw ñi mooy ñu def ci ñoom alquran mboolem jàngaleem yëpp mboolem bindam yëpp la ëpp ci li mboolem bindam yëpp boo ko dee boo ko dee jàng da nga gis buy wax ki gone na na ngeen farlu ci njàng na ngeen farlu ci njàng moom te njàng moom bu ngeen koy jàng na ngeen ci jiital njàngum alquran loola boo dee xool buy digal gone yi loolu nga jëlal téere bi nga xam ne moom lañ njëkk a muy téere bu fes muy téere tasawudu sixaar nga da ko tudde yóbbalub ndaw ñi gis nga ba leen di sant ndaw ñi lu mu wax yaa ayyuha sibiyaanu laa tastaxilu anil huda bu leen dara ñor lu dul ak njub waaye ba mu dañ koy laaj ne ko njub bu buñ ko bëggee fu ñuy jaar mun wa bil ulumi staxilo ku bëggum jub da ngay sàkku ji xam-xam mu mel dañ ko laaj na ko bu ñu jógee bay sàkku ji xam-xam xam-xam bu ñuy njëkk jàng mu ne fastaxilu bil xifz wa tilawa na ngeen ittiwoo mokkal alquran di ko jàng mu mu mel dañ ko wax ne bu ñu ko amee ba noppi nag lan moo koy yombal ak lan war lan lan war moytu mu ne wàcc tey ni boo ma jaali sa shaqaawa buy santaane képp man lu képp koo xam ne ndaw la lam koy sant la mooy demal sàkku ji xam-xam xam ba jiite ji sàkku al sàkku alquran ba mokkal ko di ko jàng teg ci kon nag naal bu mel nii nga xam ne dañ ko samp ngir daara ngir jàngale alquran ngir jàngal nit ñi te yar leen am leneen lu ci lu ci beesaat loo xam ne lu ma a bàyyi xel la loo xam ne nii ab wasbatun ilal amam ni ko arab di waxee dafa da da nga tëb jëm ca kanam mooy lan li gënoon a fés ci njàngale daara yi lim ci daw ci am donte nag am na ay benn benn yu ca ju seppi ko tàmbalee fésal loola mooy lan jàngal nit ki gone ba mu ne ar waaye jàngal ko liggéey lu am solo nga xam ne buy génn ci daara ji day génnaale mën a liggéey kon naal yu mel nii borom àll wari su koo seetaan suñu xarim na ci biir waxam dana ci ñàmbas tuuti loo xam ne lu yërëmtaloo ta daw yaram tama ta tama yëg ko fii ma toll bi may laata bi may laata jeexal faaw ma ko nee na te loolu sax daf ko cof mooy day mel ne ñi yor dara finance ci am po da leen gën a yomb da leen gën a yomb lool ay millions ki milliards moom mu génn ci am po yomb na lool waaye ay millions ki milliards génn ci diine moo jafe te ñetti téeméeri million moom jàpp naa ne am na ñoo xam ne sax maanaam génne ko day yomb lool ci ñoom kon mbokk yi ñu ngi ñaan képp ko yàlla dogal na kàddu gi egg si yow yàlla defal la tawfiq ba lii saw ñaq gi dugg ci te la nga cey liggéey yëpp yàlla na ko yàlla nangu te laqal la ko fa yàq eggul kon lii moo nekkoon kàddu yi ngir ab soññe rek te loolu suñu bopp lañ ci jiital yàlla na yàlla may ñu dégg ak ku topp jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di mbokk yi nga xamante ni ñu ngi seetaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaara di nuyu bu baax a baax ci jotaay bu am solo bii nga xamante ni moom lañu teewaay muy jotaay boo xamante ni li ko tax a jóg mooy liggéeyub lislaam muy liggéey boo xam ni dañ koy liggéeyal Seexul Xadim ci tool bii nga xamante ni mooy toolu lislaam te Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad moom sëñ Mahmoudan moom sëñ Massamba radiallahu an di ko taxawee muy liggéey boo xamante nag liggéey bu am solo la liggéeyu sëriñ Touba la waaye liggéeyu lislaam la ñu ci képp koo xamante ni lislaam ñor na la ñu di woo ci biir liggéey boobu ndax xitma la te xitma dafa nekk loo xamante ni lu am solo la te liggéeyal Serigne Touba daf cee bokk ci liggéeyal ko ci li nga xamante ni moom la gën a bëgg ndax sëriñ bi li nga xamante ni moo nekkoon ab liggéeyam rek moo nekkoon. jàng ak jàngale ak yar ak defare loolu rek moo nekkoon liggéeyu sëriñ bi muy liggéey boo xam ne mi ngi ko doon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu la wéyal doon ko liggéeyal kon sëñ Xaadim itam ci liggéey boobu la fas yéene taxaw di ci liggéey loolu nag mu ci woo mboolem ñi nga xamante ne ñooy jullit ñëpp waaye di ci woo itam mboolem xamante ne ñooy taalibe bi yëpp mu leen di ci liggéey boobu nga xamante ne xitma la te mu nekk loo xamante ne lu am solo la ndax Sëriñ Tuubaa jàngale na lu yaatu yaatu ci wàllu xitma ci ku Jinaan te wax na ni saa yoo xamante ni teewal nañ bis bi nga xamante ni mooy bisu aji sosu ji te mooy suñu borom ba ñu jël siraat gàcc ko ci kaw jaxanama ba nit ñi jànkoonte ki coona ak i njàqare ki tiis neen di am wootekat boo xamante ni day jóg woote wax ni ay na ak ahlul xidma lil muslimin ana ñi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ñi nga xamante ni ñoo jullit ñi su ko defee ñoom ñëpp ñuw yi dañ leen di diggal ni leen dem leen ngeen tabbi aljana ci lu gaaw bi am yuqaalu lahum imdul janna bi xayri mehnatin wa xayri fitna kon loolu mu nekk liggéey boo xamante ni bu am solo la kon xitma boobu nag nga xamante ni bi bu am solo la ci la sëñ Xaadim di woo mboolem ñi nga xamante ni ñooy jullit ñëpp waaye di ci woo itam mboolem ñi nga xamante ni ñooy taalibe ñu taxaw ci li nga xamante ni mooy liggéey bi te ñu xam ni liggéey suñu borom la kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kemtulaay kàttan kenn ku nekk bàyyi ko xel xam ni ndaw la waaye ndaw la itam loo xamante ni yitte ji nga xamante ni moom la am mooy yitte ji nga xamante ni mooy yittey mag ñi mooy yitte ji nga xamante ni moom la am loolu nag kon képp koo xamante ni nii liggéey ci Tuubaa ñor na rek su boobaa war ngaa taxaw ci liggéey boobu nga xamante ni moom lay liggéey nga jàppale ko ci kamtulaay kàttan ni nga ko mën ak mboolem projet yi nga xamante ne naal na ko ci yëpp ñu taxaw ci baax a baax ba a sotti ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu sottil ko ci barkeb Seexul Xadiim te àggal itam mboolem naal yi ak mboolem yi nga xamante ni mooy yéen yëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi baax leen euh, euh, baax baax euh, sëriñ Xaadim Mbàkke mi nga xamante ni moo woote lu am solo bii ngir maanaam simbu réew yi nga xamante ni maanaam euh, simb na ko muy taxawal euh, daaray alxuraan waaye taxawal institut islamique boo xamante ni mboolem fànn xam-xam yi tàmbale ci alxuraan dinañ ko fa euh, xamle kon daanaka ci côté boobu rek ci la ñu àddoo lu jëm ci wàllu njàng mi sur le plan sur le palan éducatif ak programme pédagogique bi nga xamante ni daara yi war na ko dérouler. muy daara joo xamante ni incha allah ci euh, li nga xam ne bëgg nañ ko faa jàngale li ci jiitu muy alxuraanul karim bi nga xamante ni moom sëriñ bi kenn ku ne xam ni maanaam yitteem la woon waaye tamit maanaam du ca yam ndax buñ ne institut da ngay da nga ciy dégg ne mboolem maanaam fànni xam-xam yu bëri des na ko xamale kon donga bi buñ ko jàngalee alxuraan ba mokkal ko tamit maanaam dinañ ko initier. ci yeneen maanaam xeetu xam-xam yi nga xamante ni nit ki mënees na xam ba bu génnee man caa jariñu ndax comme ñi ko ñu fi jiitu niñ ko waxee liñ liñ baaxoo gis euh, ci daara yi mooy nit ki bu jugee ci daara jàng ba noppi daanaka day delluwaat ci mbedd mi mel ne maanaam du am métier chômeur lay doon loolu nag ngir mu mën a dañ maanaam euh, njàng mi faaw ñu boole kook formation lu ñuy wax formation professionnelle nga xam ne euh, donga bi danga koy jàngal tàggat ko timit ci yenn fànn xam-xam yoo xamante ni saa bu génnee maanaam même bu ko kenn jëlut timit boo ko état jëlut wala bu ko entreprise jëlut moom mun a débrouiller boppam mën a demal boppam kon daara ja ci xeetu xam-xam yooyu ci la fànn dox sëñ Xaadim wax na ko lu demee ci ci wàllu mbay lu demee ci maanaam xeetu euh, technologie bu bees bi te TIC lu demee ne ci wàllu informatique yooyu yëpp nga xam ne incha allah bëgg nañ ko faa maanaam xam leen kon bu ko defee rek euh, euh, ñi si woo ñëpp di wax maanaam projet la boo xamante ni ku ne xañ na ci kon ñoo ngi ñoo ngi lancé appel maanaam ñi nga xamante ni suñu borom def na ñu mën cee jàpp maanaam ñu jàpp ci baax a baax te xam ne kat maanaam kuy kuy liggéeyal yàlla maanaam toolu toolu ngi nii boo xamante ni. moo ñoom boo fa jaaree sab liggéey suñu borom mënees na koo nangu te mën nga si am fay suñu borom kon ñoo ngi tuub baax ci kaar yu di yéggalu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa